wax say compétence ak sa mbaax vous étiez mon avocat dégg nañ ko fi gérel nga ñu gérel nga ñu foofu noonu rek laay ñëwaat man loi bi niñ ko libalee am amnistie bi dafa am foo xam ne dañ faa yegg rek dugal ne képp koo xam ne pertoon nga say droits civiques ak politique di nga ko retrouver looloo def loi bi benn fourre lépp nekk ci biir te foofu la problème bi commencé les manifestations du mois de mars 2021 j'étais à la rajo et à la télé ma doon def direct janvier 2022 ma nekk maire 17 juin 2022 j'ai été arrêté et emprisonné Guédiawaye na le 31 juillet ma nekk député le 6 mars 2024 ñu woo ñu fii ne ñëw leen ñu voté ab loi d'amnistie monsieur la madame la ministre dafa am ay ministres yoo xam ne ak ay procureurs yu jàkkaarloo woon ak taskatu xabaar yi am ay kàddu yoo xam ne dañ ko fee yëkkati wax ko fi réew mi dem nañ ba tollu benn instant bu ne ku nekk yaa ngay daw di wuti foo dugg parce que état du caaxante état du yëfu xale. su ay ministre de l'intérieur wala de la justice wala ay procureur dem ba xamal ñu ne am na ay nit ñoo xam ne rax nañ ñu ay forces occultes ay forces spéciales ay rebelles ay terroristes et cetera et ñu ngi fii ci biir réew mi ñëpp reculer ne bàyyi leen xel ñii parce que état du waxoon tout balaa ñoo voté loi ne dañuy seetal kii wala kii. war nañoo xam ñooñee nga xam ne ñooñu raxoon anañu chers collègues députés yéen ñi bokk Benno Bokk Yaakaar di waa APR ñii féete fii ñu jàppee woon leen ay terroristes jàppee woon leen ay rebelle jàppee woon leen jàppee woon leen tey dafa mel ni yéen bi ngeen di ñëwee tey da ngeen waroon changer place ñii ñëw nii yéen ngeen dem ne je être constant sama kàdduy démb bokk ak kàddu yi tey loolu la sëñ Abdoulaye waxoon képp koo xam ne say kàddu yi démb dafa safaanoo ak say kàddu yi tey baal mu dem koo xam ne nag say kàddu yi démb ak say kàddu yi tey ñoo bokk kooku mën ngeen a ànd lu jëm nag ci wàllum loi bii man de duma ko voté avant ñu fee ñëw laa ko wax duma ko voté tey duma ko voté ëllëg parce que Guédiawaye dafa nekk victime am na benn doomu aadama boo xam ne barki démboo njaay la génn maa ngi moom ñoo bokkoñ am nañu papis am nañu euh, Mohamed am nañu doomu procureur Alioune Ndao am ñu ay saccage am na ñu am na ñu am nañu am nañu ñoo xam ne doomu aadama yoo xam ne ay victime lañ ba fii may wax ak yéen nii duma ko voté tey duma ko voté ëllëg parce que Guédiawaye dafa nekk victime am na benn doomu aadama boo xam ne barki dee moo jaay la génn maa moom ñoo bokkoñ am nañu papis am nañu euh, Mouhamed am nañu doomu procureur Aliou Ndao am nañu ay sakaar Sonko am mi nga xam ne foofu ngeen roof galgal Malick Gakou am nañ benn am nañ ñin ba am maire boo xam ne dafa gàddaay di maire golf barki dee moo jaay lay doog a ñëw xam ne daw na ñu bëgg a xëy benn jour rek wax ñëpp ne li xewoon yëpp teg leen ci suuf ñu ñëw ci wàllum jomaay ak Sonko mi nga xam ne foofu ngeen roof galgal pour nous mettre en mal ak population mais jomaay conseil constitutionnel libéré na ko le fait que mu ne ko candidat nga mooy da set Ousmane Sonko li ko bàyyi kaso benn portable la portable loolu mooy wane ne ko affaire yi mbirum caaxaan la parce que bu lee wàllum sursis ba duggul kaso. bu dee wàllum affaire aji saar loolu nag moom contumace ba dindi na bàyyi leen nit ñi ñu dem ñibbi seeni kër waaye loi bi mënuñu ko voté lu mooy lépp dafa lu jëm nag ci wàllum réconciliation national ñun ay jullit lañ loolu nag ñëpp wax président El Hadj man moom laa àndal président El Hadj Malick Gakou. Seydou Dianko vous nit ku yaru la nit ku baax la. nit ku mën a jubóori nit ñi la dañuy dem ba di ko tuumaal ne kii nekkul politicien loolu nag moo ñi nekk suñuy kaddu loi bii duñ ko fi voté tey duñ ko fi voté ëllëg wasalaam. merci Seydou Dianko vous avez la parole absent Adji Diarra Mergane vous avez la parole suivi de Ami